yow jigéen ji jamono yi ngay jël ab morso di fompal sa borom kër dàllam yi muy sol na ko yéene lal lépp loo koy defal loo xam ne da ne lii sama borom kër laa koy defal na ko yéene lal joo xam ne tuyaaba nga ciy wut kii def jëf di ca wut tuyaaba du dàcc du dem ba mu yàgg mu ne man sonn ndax xam na ne kam koy defal wala kam ko séqal muy sun borom tabaraka wa taala lépp lum def du sànku fa moom Yalla dosang sànk jëfi aji jëf lu mu tuuti tuuti ak loo ko xeeb-xeeb loola ci boppam sa duggug àjjana mën naa doon loola musuwaar bii nga jël fomp ci dàll yi sa àjjana mën naa doon loola ak ya nga jëf yi ca des yépp la muy bari bari mën naa doon yu sellut waaye bii ñëw doon bu sell nga xam ne yàlla rek a tax nga di ko def sa dugg àjjana tegee ca loola faf kon bul xeeb dara moo xam sa borom kër la moo xam sa baay la moo xam sa yaay la la koy defal na sell na yàlla rekk tax lu gën a bari ci waajur yi danañ dem ba màggat télé ki gën ci kuy taxawu yaayam su tëlee ba mën mooy doomam ci jigéen doom ji jigéen jooju jamono ji muy sonn ci yaayam fekk tële na lool amaana naag na sax ba xamatut ba cëg lu muy def lu ne doomam jooju moo ko koy defal na sellal yéene jàpp ne lii àjjana mën na cee tukke na ko suturaal na téyew làmmiñ ci yamuy gis ci moom wax yamuy dégg ci moom na ca téyew làmmiñam ndax ñu bari buñ gisee nit ku naag dañuy jàpp ne lii moom projet waxtaane la moom de tey nee na nangam dafa ma doon laaj naan ma ana saa baay dafa ma doon wax ne noonu kañ la ñuy def nangam nett li yoo xam ne yu tumuranke la fekk yaa ngi xotti sutura ak ormay sa waajur kon yow jigéen ji tollu foofu ak sa waajur wu jigéen walla yow góor gi toll foofu ak sa waajur wu góor fasal yéene ni sa àjjana ci loola la nekk na sell na ko suturaal lépp lu soxla lu nekk na nga ko def te it xam ne ëllëg foofu yi mu toll kat fa ngay mujj toll bu boo guddeew fan aajowoo kenn koo xam ne mooy taxaw ci sa wet di la defal lu mel ni lool yi nga doon defal sa waajur wa kama tadinu tuddaan loo leble rek looloo lañ day fay sa doom yi jamono yi nga leen di yar di sonn ci ñoom bul jàpp mbirum aadala moo xam ne ku jur doom ku ne rek yaa ko war di raxas yaa ko war di defal lii yaa ko war di defal lii na ko yéene lal tuyaaba nga wut ca tuyaaba sa diggante ak sa borom yéene ju sell daal mbokki jullit yi mooy dundal ab xol mooy dundal ab xol mooy tax nit ki lu muy def lu nekk mi ngi ciy teewlu ngërëmul boroomam